auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke Cheikh Mbacke son yi bu yéen waa mbooloo mi ñu ngi leen nuyu lu bari di leen sant di leen gërëm dem mbégte mu baax nag ci mbooloo mi nga xam ne tey ji dañ ne mbooloo mu tënku la yu gëm sëñ Touba yu yaakaar sëñ Touba yu taxaw fa seen defar kàttab sëriñ son yi Mbacke bii ndax damay dooli tuuti ci euh, li sëñ Saliou Mbacke maa leen nuyu lu bari ak sëñ Motula yéen sama doon sëriñ yéen seen baay rek laa di ko ndax Madiyaana li sëñ Saliou wax di wax naa bi ko sëñ soe bi ko sëñ Abdoulaye bi jox sëñ soe bu waaye magam ju baax ja dana ko xoolal foo soxla rek ci Tuubaa ma dagal fu la fu la doy nga yemale ko fa ndax boobu xamoon ne sëñ soe bi jaamu Yàlla rek moo ko tax a jóg ak jàngale ak jàngale alxuraan mu dagg université bii boobu xamuñu ba xam ne fi def université bu toll nii ci af sigam déet suñu blaat dag ko jox suñu sony mu def fa daari alxuraan bi jàngal alxuraan ak xam-xam kon man jàpp naa ne Madiyana làqu na ci fu yàqu kenn mëntu ko yàqati ndax boobaa léegi man na cinquante ans yaakaar naa booba Senghor mi ba du Diouf ñëw ba di ñëw bi Macky Sall président Macky Sall bi nekk tey kenn mu sa gestu Madiyana kenn mu sa séddale ba tudd na kenn mës sa wax ba tudduma ma te li manqué nag bari na waaye surtout suñu sang mi ngi fiy dox ba ñu fi dëkk sëñ Tuubaa mi ngi sukuraal ba jàngi amu fenn dara poste santé amu fi bi fi siñ sang bu nekkoon moo fi ñu bàyyi ba léegi te li yéen jaar ci Touba amul benn bu dugg bi ma Diana du assainissement du courant du lenn li fi jaar kon nag loolu dañ koy seere ñi nga xam ne nii ñoo ko yor ndax xañ na nag président moom xamut fii ci Touba xamut Daaru Xudoos xamut Madiyana waaye ñi ngànk dëkk bi xam ñoo wax ak président ñu war a gëstu Madiyana ñu wax ko nag tey ndax wax dafa jot ndax Madiyana kenn ku ne xam na ne lu gën ci Touba rek muy université bi mi ngi Madiyana population bi dëkk Touba boo wax da génne a di is du bari kon nag war noo jàppale Madiyana bu baax ndax li ko njëkk ci kàtt yi Touba bari wut de te xool te xool jëmm ji nga xam ne moo ko sañgam ni suñu sony ndax kenn ku nekk boo jël ci daaram sa doom jaar na fa sëbdaal bi jaar fa mu yar la yiir la jàngal kon nag war na noo geesuma di bu baax di sant Serigne Cheikh Mbacke yi bu baax di ko ñaanal ci barke yàlla may ko bëgg jëm yàlla naag la bu baax nag ndax maa ngi woon jiite xel seen rajo ma Serigne Mountakha yaa ngi fi yàgg te ndax di taxawee taxalu ma di yaana ñoom ba la gay ñoom ñi dan faa dem mu yëg tëb xaalis jox leen sant leen gërëm leen encouragé leen ci liggéey bi ñu jógee tamit sëñ ab Abdou Lahad Mbacke mi yaakaar ñetti kër ndax ñëwat genn fi ñëwatu suñu daal di fi ñëwatu suñu ñoom ñëpp ñoo ànd takku def ji tey jii sëñ si tamit bi sant leen gërëm leen sëñ si yebal leen suñu abibu sëñ Fall ca Touba ak an taxawu Touba ma di an taxawu ànd ah, Touba ca kanam sëñ abibu wax waa ji rafet jàpp ci moom it di sant njaboot suñu sang bu gépp ndax ñoom ñu kenn ko ne ko doom suñu sang bi waxtaan ak ñoom ñoom ñu def ci seen xalaat ak seen alal def ci ndax seen carte baay moo leen ñor di sant nag euh, monsieur le maire Abdou Ka ndax maire bi am na loo xam ne àttanu ko ndax euh, am na loo xam état ko àttan lim ci man lépp mi ngi koy def ban fa demee recevoir nañu dikk na fii xool ci way lim ci man def na ko yaakaar na yu ne matériel ba solo sëñ Sidi Mbacke na ko wax di sant bu baax préfet bu Mbacke ci taxawaayam ci département bi ban fa demee moom it yir nañu waxtaan nañ ñun yebal fi sa préfet ndax ñoom kenn xam amuñ jot kon ñu ngi leen sant baax seen taxawaay waaye nag lu ma gën jàll suñu saas ñu ma Madiyana ñu jàppale baax ma Madiyana ndax dëkk bii ñu noo bàyyi seen dëkk maam ñëw dox si am yaakaar Sëñ Tuubaa ñu ne am lu Madiyana ku jàpp Madiyana ñu jàpp la ku xool Madiyana ñu xool la ku téye Madiyana ñu téye la mbooloo mi tey jii mbooloom politique mbooloom Sëñ Tuubaa ma taxaw taxaw te jàppale Madiyana la kon nag ñun ñu doon ànd ci taalibe yi doon taalibe sëñ Touba bi gën a ndaw ci taalibe yi ànd ak ñoom taxawu leen waaye nag Madiyana ko ko jàpp ñu jàpp la ko téye ñu téye la koo wan ginnaaw tamit ñu wan la ginnaaw ñoom ñu Madiyana ñi nga xam ne ñoom la président di wax tamit nag nan jël su Madiyana ndax xorom lu ci nu mu xat ñu ba wax kes di sant ñëpp di sant euh, kilifa yi fi te sew si Moutala Mbacke ak sëñ Saliou di sant bàyyi ma kenn di sant sax na madame Mbacke bi ak soxna Ayda Gaye li leen sant bu baax seen taxawaay rafet na Balla ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm ndax lii ñun ngeen doon fekk ñu ñun ñoo ci woon jub ngeen fekk ñu ci waaye nag yéen jub fekk leen ci sëñ Touba mi tax ngeen def ak sa yóbbu laa tax suñu sang ba suñu saaw yaa ngi fayal boppam ci bàkki sëñ Touba suñu xol seet na suñu xel na man nag maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw lépp lu ngeen nekk naa ko ànd ak yéen amul Seex Mbàkke amul Seex Mbàkke sang bi ndax mooy sama yaakaar tey ëllëg moom laa gëm ndax jikkoom ak taxawaayam noppeem ak liggéeyam ndax lim def ci màggal gi rek ci covid 19 bi war na aw yoon yëkkati xaalis joxe jox fi ay tuwaay ndox jox fi ay otoy ndox mbëggum Madiyana mar mbëggum Madiyana tumuranke kon nag Mbàkke gàcce nga laama yàlla na àgg tam bukki genn dox ci bàkki Seex Xaadim kontaan nañ baax jërëjëf